xamante ne réew yu bëri ñoo wuy si dàq lépp lu ñaawteef ci Afrique de l'Ouest. xam naa ni séminaire bi liñ fi wax dina am njëriñ. pertinente. ce grand rendez-vous est une. liñ fi wax ni lu am solo la. lépp rek jëm ci lëkkaloo diggante dëkk ak dëkk. la coopération régionale. ndaje mi nag ñetti fan lay nekk ñetti fan yoo xamante ni ñu nekk ci l'armée bi ay diplomate ak ñu seen xel màcc ci wàllum karange ñoo fi tase ngir waxtaanee lépp lu jëm ci ay ñawteef. de quoi se nourrit l'extrémisme violent. ñawteef yëpp euh, daanaka ak bañeel moo ko waral. ou par la pratique de celle-ci. l'apparition de nouveaux enjeux. am na ay jumtukaay yu bees daanaka loolu bokk na ci li waral kaaraange lu tax amul climat bi tamit lu muy soppeeku tamit ci la bokk ak tamit réseaux sociaux yi. devenu une fabrique massive de fake news. kuréel gi nga xamante ni ñooy saytu wàllu kaaraange biir Sénégal waa Suisse ak ñi tënku ci Nations Unies ñoom ñoo booloo dajaloo ngir ànd ay safara ci loolu lépp. Seul le dialogue permet généralement lu dul waxtaan euh, mënul soppi suñu mbébét ñu waxtaan euh, jànkoon teg jafe-jafe yépp loolu suñ ko defee rek lu bëri mën na soppeeku. lii di wàllum terrorisme ci Afrique de l'Ouest ak song yu nga xamante ne ñu ngi koy songu ñenn ñi wax nañu ko fi ay xalaat nag dinañu ko yi tay ñoom xool rek nu ñuy dajalee ay koppar ngir dàq bépp ñaawteef ci Afrique sowu jant